yàlla daf nu mayoon nu doon dëkk woo xam ne wii xëy na sunu koom-koom tolluwul ni dëkk yi nga xam ne dëkk yu mag lañu sunu population yaatuwul noonu ndax 17 18 millions dong lañu waaye suñu tur macha allah ndax suñu tradition de paix suñu stabilité àggoon na fu sore sore sore tey président Macky Sall ci bëgg bi mu bëgg troisième mandat ndax loolooy ndeyu bi léegi looloo indi problème yépp tax na ba turu Sénégal vraiment gàkkal nañu ko image du Sénégal gàkkal nañu ko surtout bi ñu gisee ñi ñu tuddee nervi yi nervi nag du dara lu dul ay sambabo yi yoo xam ne dañu yore ay gànnaay di rey ay xale yoo xam ne dañuy manifester télévision yu mag yi wane nañ ko fu nekk gis ñuy wàcc ci ay pick-up yu weex pick-up yu weex yoo xam ne gis nañ ko mu gaare ci siège bu parti président loolu télévision yu mag yooyu ñoo ko wane mu wër Sénégal yépp ba fukki bakkan ak juróom benn ci li ministre de l'intérieur waññi Amnesty International ne ñaar fukki bakkan ak ñett rot nañ ci image yooyu def tuuru Sénégal kon président Macky Sall gàkkal nga image yu Sénégal ndax lii du Sénégal bëgg troisième mandat nag mooy di li yëpp ay manifestation suñu doom yi ñu leen di boobu bëgg éliminer ay candidats jaarale ko ci justice presse bi aussi ñu sonal leen ba ci tëj ay station de télé nga yebal say ministre xam naa ne sax ba nga leen di yebal danga leen a puus ndax premier ministre moom duñ koy faral di dégg moom la mu jàpp ne primature mooy da ngay noppi ne Thiel rek primature u Thiel daal moom la jële waaye xam naa bii moom dañ ko naan yow mii foog nga dem taxaw nag wax wax jaww la te wax sax waaye boolewuñu ci sax benn yërmande ca nañ doon waxee benn ne ay xale yoo xam ne ñun ñii suñu ay maramu doom lañu pour ñenn ñi mu mat leen sët xale yi euh, lor seen bakkat nañu doon waxee vraiment li ñuy xaar ci ñoom ak ci président de la république mooy d'abord ñu massawu famille yi nga xam ne seeni doom loru nañ ci ñàkk nañ ci seen bakkan waaye ba ñuy wax am na ci ay waxu tubaab fanfaro maanaam ñi tudd yi dañoo bëgg a wanewu rek waaye ñi tudd yi lanu bëgg mooy ñi reylu xale yi ak ñi leen rey ñu indi leen ci kanamu yoon kon am na nooy waxee rek sax ci question yooyu war nga ciyee boole tuuti tuuti yërmande ndax famille yu bari tey ci tiis la nekk ci gone yooyu nga xam ne seeni wayjur amoon nañ ci ñoom yaakaar tey ñu boom leen ñoom nag ba ñuy waxtaan wax nañ ay force occulte kooku boo koy faram-fàccee ci wolof mooy maanaam ay samba booy yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge jogoon nañ jotoon nañ ko wax nag 2020 li ma ci jaaxal mooy bu fekkee ne dangay wax yu wax samba booy yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge ñetti at mënoo leen a gis mënoo leen a jàpp xamoo fu ñu nekk kon ñooñu matewuñu li ñu leen dénk kon ku ne rek war ngaa tiit ci sa kër ku ne war ngaa tiit ci sa ngay tudd ay forces occultes booba ba tey télévision àddina bi wane leen gis ay oto yu weex yu gaare ceeb buntu parti wu président de la république gis leen ñuy yéeg ci ay camion ni ci wetti ay force de l'ordre te kenn mënu leen a arrêté kon ñooñu nga xam ne moom la ñu dénk suñu sécurité war nañoo tekki seen ndomb tànk ka jiite des premier ministres teg ko suuf ñu ut ñoo xam ne ñii mën nañu assurer mën nañu assurer kaaraange war nañu mën a assurer kaaraange wu Sénégal. li nga xam ne nag mooy mooy li ci ne mooy ñu ci bëri ci Sénégalais yi muy fii ci diaspora bi. ñoom it dama lay di saluer ci seen taxawaay fu ne manifesté nañ ko fu ne fu ne manifesté nañ ko lu ne ñu ngi koy def te pourtant ñoom ña nga ca fa ñu ne di daan seen doole bëgg lu baax pour seen réew bëgg aussi seen réputation réew réputation bi nga xam ne président Macky sàll gàkkal na ko ndax lii yépp ni ma ko waxee bëgg troisième mandat moo koy indi kon ñu ñépp vraiment am nañu kersa bi nu gisee vidéo yooyu nga xam ne presse internationale bi moo ko wane waaw bu fekkee ne du dëgg lu ñuy xaar pour porter leen xam nañ ñu ñu tudd xam nañ fi ñu ne nañ leen porter plainte waaye porter leen plainte yéen ñii nga xam ne ñun ñii ñoo bokk nekk Sénégal moo gën a yomb ak i tëj télévision kon presse sénégalaise journaliste sénégalais ba ci presse en ligne bi maa ngi leen di encourager ngeen continuer doon ay jàmbaar ci lii ngeen di def parce que suñu constitution daf ñu may droit à l'information ci yéen lay jaar ngeen dékku li nga xam ne nag moom la ñu gis tey mooy xoqatal presse xoqatal opposant xoqatal manifestant ñu ngi leen di encourager di encourager groupe Walfadjri bi nga xam ne tëj nañ ko sax moom parce que nag président Macky Sall mënta tëj télé yëpp mënta tëj rajo yëpp mënta télé aussi jéem na ko sax internet bi ñu bloqué ko loolu kenn mus koo gis ci pays boo xam ne bii démocratie fi nekkoon 2011 def nañ fi opposition ba président Abdoulaye Wade jóge fi kenn mës ta coupé internet mës ta coupé wuñ internet coupé wuñ téléphone arrêté wuñ journaliste ki nga xam ne nag moom bëgg naa ko tudd aussi ci mbir mi te toogoon foofa ca seen conférence de presse bi. nga xam ne moom dañ leen dañ leen ko ordonné ñu ci bëri sax moom xam naa ba dem moom daanaka ju woon ci seen coobare bopp waaye seen patron moom moo leen ne ay caleen acca da ko waxee président premier ministre moom du ngeen ko yéen ñi du ngeen di jàkkaarloo moom lu yëf yi gën a sedde rek mu gën a kile noonu ba kenn du ko remarqué ba ñu naan premier ministre am na Sénégal moom boobu mooy style waaye bii xam naa patron daf ko ne ay ca jiitu ki nga xam ne moom laa ciy tudd nag muy maître Sidiki Kaba li tax ma koy tudd moom dafa doonoon ab jàmbaar ci défense des droits de l'homme ba muy bokk Amnesty International ñu bari ci yéen juddoogu leen ndax 1979 la woon ñeent fukki at ak ñett ci ginnaaw mu jiite woon fédération internationale des ligues des droits de l'homme